gone yi ñu bëgg a bàyyi ñu dem jàngi te réglé wuñu conditions yi réew yu koy def yëpp dañu dañu jël ay matuwaay parce que réew moo xam ne classe su dix personnes na ak réew moo xam ne classe su vingt personnes la ak réew wala seize personnes ak réew moo xam ne classe boo dugg doo am foo teg sa tànk bokkuñu réalité distanciation un mètre bu ñu wàcc bu ñu bu ñuy def France wala ñu def ko Suède wala mënuñu ko def Sénégal école yoo xam ne da ngay dem ci école ba mu daj benn toilette a ci te toilette ba boo fa demee maara gone yi ñu bëgg a bàyyi ñu dem jàngi te réglé wuñu conditions yi de yu koy def yëpp dañu dañu jël ay matuwaay parce que réew moo xam ne classe su dix personnes na ak réew moo xam ne classe vingt personnes na ak wala seize personnes ak réew moo xam ne classe boo dugg doo am foo teg sa tànk bokkuñu réalité. waaw comme nu ngeen ko déggee ci audio bi euh, Ousmane Sonko nu mu ko waxee. Euh, fii day bëgg a wax ne bu ñu tëkkalee Sénégal ak yeneen réew yi waruñu profité naan dañuy reprendre les cours reprise des cours reprise des cours dul jeex te parewuñu comme vule le depuis boobu ba léegi euh, gouvernement bi mi ngi waajal reprise des cours ku nekk wax na ci opposition bi wax na ci ñoo xam ne dañuy évoluer ci secteur de l'éducation wax nañ ci ñoo xam na ni aussi ay citoyen lambda lañ wax nañ ci parents yi aussi wax nañ ci même élèves yi ñu bëgg a yóbbu sax si école yi sax wax nañ ci dara ump leen ne woon dara ju gën a siiw si jamono ji Sénégal deux juin ci la bokkoon reprise des cours deux juin reprise des cours deux juin état bi préparé ko waaw distribuer ay matériel ay thermoflash ay masques et autres ba ñu demee ba booy war a xëy war a jàngi presque ay vingt trois heures et quelque ci la rumeur bi di daw ci réseaux sociaux yi ak ci yenn télé yi di wax ne kat président Macky Sall reporté na cours yi à une date ultérieure maanaam instant bii nii fixé wuñ benn date waxuñu benn date date date date boo xam ne joxe nañ ko pour reprise des cours dañ ne à une date ultérieure mën nañ xëy xëy sax joxe date. mën nañ xëy xëy joxe date wala mën nañ toog bu heure bu leen ba septembre sax ñu joxe date moo tax instant bi nii képp ku élève ak parent d'élève ak enseignant surtout élèves yi li ma la ñuy conseiller mooy ngeen concentré wu xoolaat seen programme di def ay révision dugg ci am na site yoo xam ne ni bu ngeen fa demee da ngeen fay fekk programme bi yëpp ak ay cours en ligne comme lu mel ne éducation sn comme comme lu mel aussi ak yenn télé yi def cour yi si si si si si si si si def ay cours ci télé bi TFM da koy def je pense RTS da koy def parents yi aussi ñu veillé ci seen doom yi poursuivre seen cours à distance di koy def à la maison li jëm ci côté étudiant yi nak ñëpp xam nañ ne étudiants yi jamono ji ñu tollu mënul leen imposer cours en ligne parce que xamuñu ko amna na étudiants yoo xam ne ni boo ngi dem ba master 2 mënuñu utiliser wut wut wut laa de mënuñu ko parce que xamuñu ko musuñu ko def musuñu ko jang d'ailleurs amna ñu xamné sa xam ne musuñu yor ordinateur bo xam ñoko ñoo seen bop dañ koy seen ni dong kon fofu aussi war nañ xolaat bu baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baax naka lañu wara mëna a pour reprendre les cours comme lu Ousmane Sonko wax nonu amna ñu bëri ñu ko doon wax mais reprise des cours bi manon na am mais aussi waroon nañ ci mele ñu bari bari bari parce que on a remarqué que ñun ci remé de trop bo xolé moy secteur public mais pourquoi pas secteur privé parce que y a des établissements de formation professionnelle Il y a des écoles lycées privés et autres mais il faut que invite invité acteurs yoyu mele len ci activité bi aussi à leur niveau ñi mëna a seen idée amna école yo xamni comme école de santé mais école yooyu noonu tay ñoom suñ mënul euh, éviter yenn nous suñ gérer comité Covid mais ñun en tant que école de formation bu jàngal ay sages-femmes ay infirmiers ay techniciens en biologie ay docteurs et autres ay médecins kon foofu noonu ñooñu war nañ taxawal impliqué gérer affaire ba problème du parce que état état mënul tok tout le temps tout le temps tout le temps day defar day defar day defar état buy aussi il faut que aussi mu éviter yenen secteurs yo xamni ñi ngi nek ci secteur privé ñi jappalé ko parce que le ministre de l'Éducation nationale Mamadou Tala, le ministre de la formation professionnelle Dame le ministre de l'Enseignement supérieur, supérieur Cheikh Oumar ñom kessé kessé kessé kessé kese ñu di xé di top liggéey ba mu ça. il faut que ñu inviter ñenn ñi pour ñu mëna and ak ñom

regarde comité orientation éducative CEO Sénégal mais combien d'étudiants y ont xam ak combien parents d'étudiants ñoko xam ñaata concours les publier par an ñaata offre emploi les publier par an et pourtant loolu direction des examens et concours def ko et pourtant loolu ministère de l'éducation def ko et pourtant loolu ministère de la formation professionnelle def ko et pourtant loolu aussi euh, amul euh, ministère Macky Sall bu ko def et pourtant amul ben yone bo xamni ne nii ñooñu Macky Sall mas na taxaw hein woote les woo Ben ben ben ben invité affaire bo affaire bu euh, Covid mais ay rappeur rappeur yi sens amal ci côté rappeur yi dem rappeur étudiant bi euh, def concours tel concours. étudiant concours tel concours nga gis wala rappeur musique ben affaire leçon étudiant élève y pas amul qu'on se dise la vérité ce wax ni c'est que pour yakal mbalax wala rappeur mais parce que du sen aussi que que <clears throat> ay ay ay programme ci sen son yi c'est juste que son yi war sensibilisation mais tay amul ben tay son bu ma mës gis hein bo ne ni gis vidéo vidéo ben musicien taxaw di wax ne étudiants yi wala élèves yi su bëggé am concours def leen wala concours bi def leen ni pas wala benn mbalaxmaan bi taxaw ne étudiant bu bëgg am offre emploi defal defal defal nii mais pourtant ñooñu ñu ngi koy def tout le temps c' est vrai que ne état bi am nay ANPEJ am nay 3PT mais ANPEJ 3PT structure yi tey ñu leen xamee xamee wuñ ko ay ANPEJ xamee wuñ ko ay 3PT mais qu'on se dise la vérité il faut que aussi buñ bëggee jug pour Sénégal il faut que aussi ñun ñëpp ñu booloondoo nekkandoo benn muy public muy privé muy ku am muy ku ñàkk. <clears throat> muy professeur muy enseignant muy élève muy parent d'élève muy gouvernement ak ku mënti doon muy opposant muy parti au pouvoir il faut que ñu boole xol yi boole aussi idées yi pour que nga xam ne benn combat la combat boobu combat mondial la il faut que ñu boole doole yi setal xol yi Ousmane Sonko li mu wax ni qu'on se dise la vérité mais moi en fait, parce que tey boo boo boo xoolee tey ah boo demoon ci benn lycée fii public au Sénégal nous dugg ci benn nga dem France lycée bu France parce que nous am moyen peut-être classe def 10 étudiants par rapport Sénégal nous avons fekk classe mu nekk étudiants parce que loolu Afrique moo loolu mënuñu ko parce que loolu Afrique moo demee noonu mënuñu ko mais aussi nañu bàyyi xel nañu bàyyi xel xam ñun ñëpp tey defar moo ñu tax a jug man mii di wax ak yéen defar moo a tax a jug je sais que aussi peut-être Macky Sall président Macky Sall aussi même bu déglu woon toog teg bi dana xam ne aussi ñun defar moo ñu tax a jug ñëwuñu fii pour aussi pour créer problème kenn wala ñëwuñu fii aussi pour tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps di naqarlu mais dañoo ñëw pour partager les idées avec ñun ko war a partager parce que nous sommes des Sénégalais comme ñoom ñu nekk ci gouvernement bi xoolaat suñu mbir.

10 personnes là ak réew mo xam classe personnes la ak wala 16 personnes ak réew moo xam classe boo dugg doo am sa réalité